nañ fi nga xamante ne moo di cour suprême on peut attendre à que Ousmane Sonko ñu daal di koy rajewaat ci liste électorale yi parce que tamit euh, man euh, euh, xalaatoon naa sax la fait ñu ne renoncé nañu waa agent judiciaire de l'État renoncé nañu li nga xamante ni moo di li nga xamante ni moo di récusation bi man je pouvais comprendre peut-être moment boobu mënoon ñu am yàqin ni Euh, dina bokk ci li nga xamante moo di liste électorale mën nañ ko ci biir mais du du moment que daal nañuy defaat li nga xamante saisiraat cour suprême rek euh, xel mën na ñaaw euh, tout en sachant que Ousmane Sonko musul rek am ndam ci benn procès boo xamante ni dox na ci digganteem moom ak mooy procès affaire Sweet Beauté bi wala mu nekk mbiram ak ki nga xamante ni rek moo di Mame Mbaye Niang amu ci benn yoon li nga xamante ni moo di ab ñeexintaal boo xamante ni positif na Euh, ci côté wam nekk na mbir moo xamante ne daal doy na waar tey moor ñu jotaat leneen ci ay xibaar mu ñeel ba tey euh, ki nga xamante ne rek moo di njiitu ex Pastef boobu di Ousmane Sonko jot nañ ci ay xibaar ni di dinay rek euh, bëgg wala boog muy sàkku à ce que ñu delloo ko ci kaso ga ginnaaw bi nga xamante ne rek jamono ji mi ngi amal ab grève de la fin bu métti lool ba mu amaat njeexintal sax ci wàllum wér-gi-yaram waaye tamit malgré tout ça moom sàkku na asaka ñu daal di koy delloo fi nga xamante ni rek moo di kaso nag nekk ay kàddu yoo xamante ni maître euh, Ciré li nekk kenn ci li ñuy layal Ousmane Sonko moo ko rek daal di euh, xamle muy xamle li nag ni ki tey jii Ousmane Sonko il est à son cinquante cinquième jour de grève de la fin ginnaaw bi nga xamante ne arrêté euh, mi arrêté nañ ko ba tey jii ak séquestration bi nga xamante ne séquestré woon nañ ko pendant cinquante cinq jours ci këram moom ma Maître Ciré Clédor Ly xam na ni tey euh, Ousmane Sonko xamal na ko ni dafa bëgg rek ñu daal di koy delloo ci kaso ga certainement li nga xamante moo ko waral rek bokk na ci xale jigéen yi nga xamante ni rek euh, ña nga camp pénal amal li nga xamante ni moo di grève de la fin ca biir kaso ga bokk na ci li nga xamante ni moo waral Ousmane Sonko fas yéene rek dellu fa nga xamante ni rek moo di ca kaso sëbi xotaan daal di fay eggalee li nga xamante ni mooy grève de la faim mais li nga xamante ni rek moo tiital nit ñi moom mooy que ni Ousmane ko Euh, grève de la fin bi sax dafa daal di yëkkatiwaat li nga xam mooy jafe wér wér-gu-yaram yi nga xamante ne moom la amaat. waaw ouais, toujours comme d'habitude euh, grève de la faim moom ala kulli dafay am euh, ay ay conséquences sanitaires euh, ñu gis que ni avant loolu sax mën nañu wax que ni Ousmane Sonko vraiment guerrier la te mu ngi wëy aussi tamit di mont di wone anam bi nga xamante ni noonu la nekkee jàmbaar parce que désormais mën nañ jàpp ne vraiment nekk na koo xamante ni. ci histoire àdduna bi ci wàllum grève de la faim bokk na ci euh, en tout cas les parce que mën naa jàpp ne apparemment il a fait le double que Nelson Mandela en 66 il a fait 26 voire 27 jours de grève de la faim mm-hmm. Ousmane Sonko tey mu ngi ci ay 54 jàpp 55 jours loolu wax dëgg yàlla euh, nekk na mbir yoo xamante ni jàmbaar dëgg moom moo ko man beneen bi stop aussi moom mooy est-ce que moment bi ñu toll nii ak Sénégal bi ñu doon euh, rafetlu ci wàllum démocratie ak Sénégal bi doon rafetlu ci wàllum état de droit nga xam ne li fi am ci ay élection présidentielle euh, àggaguñ sax cinquième président ci quatrième lañ toll ba waaye war koo jeexal dama jàpp ne kon nekkul dëkk boo xamante ni euh, ci wàllum indépendance yàgg nañ trop am li nga xamante ni moom mooy seen autonomie kon est-ce que tey moment bi waruloon fekk moment bi nga xamante ni moment de concentration la par rapport ak en tout cas enjeu mondial yi la boo xamante ni moment de concentration la par rapport ak concurrence bi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku mais lan lañ gis mooy que ni à chaque fois Euh, dafay mel ni ñaari stratégie moom moo am mooy que ni Ousmane Sonko toll na si moment boo xamante ni dafa woote anti système toll na si moment boo xamante ni aussi dafa woote révolution est-ce que euh, tey régime bi nga jàkkaarool nga xam ne déjà ñoo njëkk a nekk sa adversaire avant les colons ndax bu fekkante ni da nga am loo woote dafay def am njeexintal ci ñi nga xamante ni ñoo la coloniser apparemment seen ay entreprise yu ci bëri installé wu fi nga xamante ni moom moo dëkk bi tey dama jàpp ne li am lépp ay conséquences la ci profit bi nga xamante ni Ousmane Sonko yoroon na ko ay conséquence la aussi ci Ousmane Sonko politique bi nga xamante ni mu ko doon incarné mm-hmm. mais lan lañ mën a jàpp mooy que ni buñ xoolee li nga xamante ni moom moo jëm si euh, grève de la faim bi tellement da ngay xam ne wax dëgg yàlla loolu la mën parce que am nañ ñoo xamante ni ci wax bu demee ba moom mu koy déggaat certes jàpp naa loolu kenni euh, voilà moom moo dem prison moo tax dafay porter malade wala nangama sàngam parce que à chaque fois ki nga xamante ni moom mooy sa ennemi même boo demoon sax bay sokoraat euh, bay sokoraat du la lii Euh, du la gëm wala daal en tout cas tant que demoo ba génn àdduna du jàpp que ne kii nii mu ngi woon ci dëgg loolu aussi mën na ko pousser à ce que bu fekkente ni ay jigéen ñoo xamante ni gëmuñu ku dul Ousmane Sonko gisuñu aussi lu nekkoon Ousmane Sonko ak son projet Pastef euh, ba mu jaral leen leen li moom aussi tamit c'est très normal mu dem rejoindre leen ci combat bi muy lan defaat li nga xamante ni moom mooy euh, grève de la faim defaat aussi tamit ay forme de résistance yi nga xamante ni apparemment moom la dese wooy di sàkk aussi tamit ñi nga xamante ni am nañ le droit de se déplacer ñoom it partout ñuy organiser ay rassemblement ay manifestation ngir wëy à l'échelle mondiale di dénoncer li nga xamante ni moom moo xew Sénégal loolu aussi tamit façon euh, xamante ni euh, dañ ko koy nangul mais en tout cas luñ mën a jàpp moom mooy euh, effectivement nekk na nit koo xamante ni wax dëgg yàlla Euh, depuis bi mu commencé ba léegi même résistance bi mu nekkoon ci la nekk xañ na peut-être degré bi xaw na wàññeeku parce que amatul les moyens qu'il faut amatul aussi tamit liberté qu'il faut lan la am mooy li nga xamante ni la am mu nekk ca te jàpp naa ne tey ñi nga xamante ni aussi ñoo nekk si biti ñoom it ñu ngi wéy def li nga xamante ni moom moo leen war apparemment dégg nga tey ñu ne am nañ ab euh, conférence de presse yooyu yëpp ay forme de lutte la yoo xamante ni ñu ngi nekk di ko utiliser mais lu ñu mën a jàpp moom mooy par rapport ak wér am na foo xamante ni buñ fa topp li nga xamante ni moom mooy xolam parce que aussi gentleman ak ci benn moment boo xamante ni du topp sa xol mais da ngay xool la sa xel di dicté mooy que ni à tout moment da ngay calculer lu mën a xew mooy que ne da am benn adversaire boo xamante ni même tey boo demoon ba sa dernier souffle ci li nga xamante ni moom mooy sa visa moom mm, yoonam nekku ci kon aussi war nga wut ay stratégie yoo xamante ni da fexe ba bu mu am ndam sa ko malgré moom moo la jekku dafa am benn mbaal ma rek anecdote la quoi dafa am benn benn waay <laughs> juste pour def transition quoi. Euh, benn paa waa ji da ko yeb ci oto. Mhm. léegi bi mu ko yebee euh, waa ji moom pour moom daf ko nax euh, fayoo ko 7000. Mhm. léegi bu ñu wax téléphone mu ne mu ne ki muy waxal benn paa de xaw naa koo rey parce que moom laa yeb 7000 la ma fay paa bi ne ko man de maa ngi sant parce que boobu ba léegi fay naa 15000 mais aw maan ku ma andi. pour woon la juste que ni même boo demee ba daanu sax mhm. wutal stratégie yoo xamante ni sa adversaire bu nga xam ne yaa ko jekku même bu fekkee da ngay da koy nax doo naxoo sa bopp parce que yow yaa ngi bëgg jël la dessus ci moom mhm. te jàpp naa ne Ousmane Sonko fi mu nii mooy que ni bu continuer résistance bi day def ab njeexintal boo xamante ni ci wér-gu-yaramam te lu ñu mën di wax moom mooy le peuple a besoin de Ousmane Sonko mm-hmm. parce que àla kuli ali wane na loo xamante ni ba buñ demee ba a nekk lan ki nga xamante ni moom mooy leader bi gën a faar gën a potentiel dafa nekk ci ay circonstances yoo xamante ni xamuñu est-ce que ndax buñ parrainee ñeneen ni moom dina génn wala déet ñuy xaar moom kan lay désigner comme candidat wala ndax moom mooy nekk candidat bi pour koo parrainer ba ay leader commencé di jàmbat le fait que jeunes yi jël seen ay responsabilité que ni duñu parrainer kenn nekkul seen leader dama jàpp ne loolu wax dëgg yàlla am na lu mu war a dicter sénégalais yi am na aussi lu mu ñu war wax te jàpp naa ne lu mu ñu war wax moom mooy lan mooy benn victoire bu nar a éclatante en 2024 jàpp naa ne nag su boobaa adversaire am lu mu ko jaral daf koy def ca mel noonu lañ toll moo tax ma gëm ne moom aussi war na mën a jël recul par rapport ak grève de la faim bi jël dem fi nga xamante moom mooy prison nekk ci li nga xamante nga xamante moom mooy combat bi sinon lañ xeexan depuis 2019 ba moment bi nii dañ multiplier par zéro parce que jàpp naa ne bu rombee Ousmane Sonko 2029 wala 30 c'est pas sept ans yu njëkk yi moo nar a xewaat est-ce que du am ay leaders yu nga xamante bi te lu ñuy wax kan ni kenn ku nekk ak sa époque kon gëm naa ne 2024 bii nii époque Ousmane Sonko mu ratee kon jàpp naa est-ce moo jàppoon ne cette décision xamante ne rek moo di Madiambal Diagne ginnaaw bi dogal bi jógee que ni Ousmane Sonko dafay defaat li nga xamante ni moo di grève de la faim gis nañu communication bi nga xam wala euh, def comme quoi que Ousmane Sonko dafa bëgg a defaat grève de la faim juste pour toog hôpital donc est-ce que nekkul c'est une réponse par rapport ak li nga xamante ni moom la Madiambal Diagne wax. Euh, déjà Sonko bu réagir noonu rek dafay tombé ci piège mm-hmm. parce que am na ñoo xamante ni man en tout cas am naa benn vision Sénégal mhm. euh, am na ay obstacles yoo xamante ni doon naa ko franchir li arrivé ma damay woy euh, rester constant ci li nga xamante ni moom mooy sama yoon li may sama xel may ak sama entourage bu ñu waxtaanee lu ñu teg ñu adopté loolu noon am na loo xamante ni nag c'est personnel muy yenn résistance yi nga xamante ni yow yaa ko jël nga xam ne même bu la nit ñi gàntalee sax wala ñu aaye la teewul mën nga continuer ci du dëgër bopp mais ci anam bi nga toll muy état d'esprit bi nekk si yow mën na la pousser à ce que nga continuer di résister mais bu résister ngir mu def li nga xamante ni moom mooy tabac bu résister aussi ngir mu def li nga xamante ni en tout cas ñu bëree bëri di ci di ci wu di yàbbi mais résister ndax da nga nekk résistant résister ndax danga nekk koo xamante ni am na loo waxante ak askan bi am na aussi yaakaar bu ñuy xaar yow ñu xam ne démb ba muy métti yaa ngi ñoom la woon kon tey bu mu gën a métti mukk nga ne dangay ngay déserté combat bi te jàpp naa ne lii daf ñuy won kene même buñ aman bu dul Ousmane Sonko sax te ñu am président bu mel ni moom ci profil lu Sénégal métti métti dina taxaw ànd ak ñun ensemble ñu xeex ngir li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yooyu mu dañ mais tey ñaata politicien nga fi gis arrestation ñu déserté li nga xamante ni moom mooy seen combat ñaata politicien nga fi gis ñu menacé leen ñu bàyyi li nga xamante ni mooy combat bi ñaata politicien nga fi gis ci ay dossiers yoo xamante ni peut-être ils sont coupables mën na am coupable lu ñu mais téewul dañ leen a euh, épinglé ci ay mbir ñu dem rangé wu ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo seen adversaire def transhumance boo xamante ni dalay leer ne dañ leen a chantage sinon arrestation mën na ci juddu te dama gëm nag moom la fait këm mu nekk nit koo xamante ni Euh, en tout cas il est mu nekk nit koo xamante ni aussi tamit mën naa jàpp ne wax dëgg yàlla nitu principe la kon jàpp naa ne Sénégal lu mel noonu la ñuy xaar mais quant mu nekk di répondre ay nit wala mu répondre yenn ci ay bindikat dama jàpp ne loolu aussi tamit euh, peut-être dafay ñëwaat ci euh, benn maturité wala boog immaturité boo xamante ni jàpp naa ne mënoon na ñàkk li ñu xaati moom mooy Ousmane Sonko mois bi nii mat na lii ko arrivé nii arrivé na ñu bëree bëri ci ñoo xamante ni lan la leen mujjee jural ñu mujjee nekk président ñenn ñi lan leen mujjee jural ñu mujjee nekk ay roi kon dama jàpp ne lu am solo moom mooy na xam ne benn épreuve la bu mu waroon franchir ci parcours am te jàpp naa ne aussi tamit mu ngi à terme parce que bu ñu demee ba naan dernier moment mën na bokk ak mënul bokk na kon ne lim doon xeex xam ne peut-être dina am benn résultat bu positif en tout cas vu son état de santé d'après ni ko maître euh, Ciré Clédor Ly di waxee euh, warul mën a toog fi nga xamante ni moo di kaso Euh, kaso du nekk place am ak état de santé bi nga xamante ni moom la nekk na toogani rek fa nga xamante ni moo di ci hôpital ba ba faju ba pare wala tamit mu dakkal li nga xamante moo di grève bi ngir mën a amaat force au moins pour mën a dellu nga xamante ni rek moo di prison jusqu'à ce que ñu daal di koy libéré wala ñu xool naka lay mujjee Bamba ñu bàyyi la nga joxe sa jàngat ci li nga xamante ni mooy décision bi Ousmane Sonko daal di jël ngir dellu fa nga xamante ni moo di ca kaso ga malgré son état de santé nu mu fragile waaw man dama jàpp ne décision boobu certainement am na jàngat bu yaato yaatu bu ñu ci war a def. Mm. d' abord mooy euh, lan moo tax Ousmane Sonko soobuwaat ci li nga xam ne moo di grève de la faim mooy jàppale ay soxna yoo xam ne. dañu doon naqarlu ci anam bu ñu nekkee ci kaso yi maanaam leur manière de détention beneen biit bokk na ci longue détention yi ak euh, surtout ñu nekkoon ci côté Ziguinchor mooy téléphone bi ñu gis ne euh, quand actuellement euh, dañu ko dal di yokk ba unité bi mu ngi ci woon ci cinquante francs mm-hmm. donc peut man leçon bi nga xam ne wala jàngat bi ñu ci war a def dans cette cas figure mooy lu simple la mooy Ousmane Sonko dafa bëgg a ne le même cas

également dinañ wéy di ko bàyyi ak li nga xam ne rek moo di eh, ci fi nga xam ne moo di hôpital eh, principal bi nga xam ne fa la nekk mais li ci am ba des daal pour man jàpp naa ne comme ni ko Mor waxee peut-être eh, lu jëm ci wàllum xiifal lu jëm ci wàllum grève de la faim ak yeneen ak yeneen dafa bokk ci yenn ci ay combat yoo xam ne États-Unis dañ ko yàgg mëne ku ci mel Nelson Mandela def na ko ak ñeneen yi nga xam ne tey dañ leen di citer par rapport ak li nga xam ne moo di leur africanité ou par rapport ak combat yi nga bokk li nga xam ne moo di seen combat et loolu lépp dafa war a am benn njeexital boo xam ne bu njeexital bu am solo mais maintenant dugg ci xiifal boo xam ne mën na fragiliser sa yaram et tout parce que tey euh, quelqu'un comme Cheikh Bara je pense que bu mu génnee euh, gis nañu wérgu yaram wala gis nañu yaramam lu bëree bëri wàññi na ci et donc Ousmane Sonko bi nga xam ne il a fait au delà de euh, à l'époque 34 xam ne certainement sóoboo na ci wala duggoon na li nga xam ne moo di grève de la faim donc bu ci sóobuwaatee dinañ xam concrètement que loolu dina ko indil li nga xam ne rek moo di njeexital mais waroon ko donc man nekkuma nit ki ba kay apprécier wala moo na ko def waru ko def mm-hmm. l' essentiel ci am l' essentiel ci am solo rek mooy Ousmane Sonko c' est quelqu'un boo xam ne xam nañ ko ci résistance xam nañ ko ci bañ xam nañ ko euh, ci li nga xam ne moo di yi ñu mu dugg ci li nga xam ne moo di grève de la faim maintenant je pense mooy apprécier selon li nga xam ne moom mooy njeexital bi lim ci am ak lan la ko war a a jural et su ko defee de se ak euh, ces centaines ou ces milliers de détenus yi nga xam ne ñu ngi souffrir en prison ñu ngi fi wéyal di fa di xiifal te kenn mosu leen yóbbu li nga xam ne moo di hôpital li leen yóbbu mooy jox leen ay euh, comprimé ñu naan ñu pare yóbbaale seen solide donc pour man dafa bëgg a wane que nag man ak ñooñu tey kiif kiif ñoo yem donc pourquoi ñu dama indi fii tey bàyyi leen ñoom dans les prisons et je pense que le cas Fleur et de Maty semaine libération jot na ci ñëw que ne on doit auditer concrètement euh, ce qui se passe dans les prisons parce que maintenant tey Sénégal ce qui est émouvant mooy on n'a pas besoin euh, tey nga toog benn weer ñaari weer wala ay semaine nga dégg ne prison diw ñu ngi grève ñii ñu ngi grève ça veut dire que y a beaucoup de mouvement de de de de mouvement d'humeur dans les prisons et tout loolu lan moo ko indil bokk na ci longue détention yi nga xam ne CREC maître Aïssata Tall wax na ne dina ci liggéey dina ci def enquête pour ñu gën a baral li nga xam ne moo di jéego yi leneen également bokk na ci condition de détenus parce que actuellement bu ñu demee ba ne ñu ngi gis que ne lu toll ci li nga xam ne moo di plus de mille et quelques détenus politiques ñu ngi ci kaso gi fekk si les douze mille yi nga xam ne les six mille ont été jugés les les autres six mille également ñu ngi ci en détention

wax ko ñu bañ ko tey am na ñoo xam ne ñu ngi dund jaal na ma ci kaso gi et je mm. pense que loolu doon na loo xam ne lu doy waal encore une fois de plus je pense que c'est dans cette de figure mais maintenant moom euh, am na droit mu wax ne yóbbu leen ma mais ñi koy yóbbu ak ñu koy indeek ñu ko fa taaj fee je pense que xam nañ ban moment lañ ko yóbbu ak yóbbu mais li ci am ba des daal mooy dans cette affaire là war nañu ko vider pour que puisse comprendre alors euh, euh, ba Mor Juan Branco moom itamit daal di génn euh, génnaat rek démb ca jury du dimanche bi nga xamante ne Babacar Fall moo koy def foofu ca RFM ou TFM en tout cas GM Média la koy